asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 24 janvier 2020 ñu ñëw ci ci likkaay yi moo xam sunu làmb la record wala Leewtoo point net fu nekk ay xibaaru làmb xëy na fa tey bu ñu yëg likkaay bii di sunu làmb la nag moom dafa ñëw ci diggante ki nga xam ne nii moom moo di Modou Lo ak Ama Baldé mu mel ni ki nag moom léegi leer na nañ lig Nicolas ma tëgg làmb ji daal confirmé na ne combat moom day am kon moo tax nag ñu ngi mën a xaar benn à face boo xam ne de bu doy doy waar la boo xam ne mu ngi war a am dox ci diggante Modou Lo ak ka nga xam ne nii moo di Ama Baldé mu mel ni ki nag biram ñi tamit mu ngay wax moom tamit de di xam ne ne daal lig moom confirmé na leen lu mel ni ki noonu kon li leer nag mu ngay avertir ñaari cas yi nga xam ne ñoo yor mbër yi mu mel ni kii nag Modou Lo moom ci lu yàggul wala loo xam ne nii daal mënees na koo xaar léegi ñu gis ko fi nga xam ne nii moo di ndakaaru mu mel ni ki nag moom li leer ba leer wili ma nga xam ne mooy doomi lig Nicolas moo nar a taxawe la nga xam ne moo di face à face boobu kon boobu combat moom daa mel ni ay mbiram mu ngay jëm mu ngay leer jëm ca kanam loolu moom li nga xam ne ni yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw dina ko wax waaye bu ñu ñëwee tamit ba tey dañuy dem fa nga xam ne mooy Leewtoo point a mu ngay leeral ak ñàkkateewam ci li nga xam ne ni moo doon soxna Asi Njaay si nga xam ne daa wàññeekoon fan yii te ñu doon ko dëj ca fan yi ñu génn Modou nag daal la mu xam ne moom nee na li leer ba leer xanaa kay ñàkk nekk Sénégal waaye xalaatul nekk Sénégal nit wàññeeku ku toll ni Asi Njaay soxnaam Modou ne ma fay bañ a teg sama tàng ngir lan Modou ne na loolu xalaatu ko tey suba waxi noppi ndax nag bu dara dul dara moom Asi doomi sénégalais la tey bi leer ba leer itam nit ku faatu moom kenn du ko tëkkale ak lenn xanaa kay nee da koo fekkul sénégal tey sax njaalam sax moom desaa def na ko te bu ñibbisee ci réew mi dana demal boppam ba kër Aziz jaalewaat ko loolu mu nga ca leewtoo point net ñu fekk ko fa leneen loo xam ne tamit fekk nañ ko fa nga xam ne nii moom moo di ca record mu mel ni ki nag diggante Ama Baldé wala boog diggante Siteu ak ka nga xam ne nii moom moo di Papa Sow nar naa tàng cir ndax ñaari mbër yi moom ñu la ku nekk daal yaa ngay nàmm sa jaasi fas yéene jubali bés ba nga xam ne mooy le 5 avril moo tax yëglikaay bi ñëw ci ñoom ñaar Abou Ndour nag moo def boobu gëstu bu dee ki nga xam ne ni ne moom moo nii a soog moom mooy setta moom fa nga xam ne nii daal mooy ci GIGN fa la nekk moom itam di waajal bés ba ànd ak ñoom Maama Lamine di nàmm ay jaajëf bu mel ni ki kon foofu moom nar naa metti ba yegg ci lool loolu waaye ba tey dañuy continuer des ci jooju lamb ndax na ka nga xam ne nii lay moo di ngañ jaañ seq na waxtaan ak Abou Ndour ci record ngañ nag la mu xam ne daal dana Papa Sow mooy favori ci kanamu Siteu maanaam daal papaay favori waxe ngañ jaañ la du samay wax dana li nga xam ne nii nag moom mooy ñaari mbër yi ngañ jàpp na ne ñaari attaquant lañ ku ci ne da ngay dem waaye nag Siteu moom lu mu liggéey ci wàllum résistance du doy Papa Sow nag nee na li leer ba leer moom attaqué mooy li ko ji wala boog combat rapproché daal moo ko arrangé lool waxi ki nga xam ne nii la moo di ngañ ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record bu ñu delloo sunu làmb noom ka nga xam ne ni moo di fara ma ñu xam le woon démb ne daal moo Papa Sow ñu nga ca nas écrit bu bees waa parcelle mbooloo nag daa mel ni ki loola moom ñu ngi cay wax maam lees ba leer moom nee na ki nga xam ne mooy fara ba mu ngi continuer di li nga xam ne nii moom moo di parcelle mbooloo yëglikaay bi nag nee na bu fa fara jógee day danañu perte espoir boo xam ne wala mbër moo xam ne pour ñaamati ko moom dana jafe waaye maam lees moom d'accordul ca loola la mu xam ne daal dina fara ba tey mu di fa milité waaye leneen loo xam ne moom pour promoteur yee ko def mooy nu tàng tàng jër ka ca jëkk moom moo di jéy seen jéy daal fa mu xëy génn fu nooy nepp la ci diggante ki nga xam ne nii moom moo di Abdou Diouf bu waalo ak ka nga xam ne nii moo di Gris bu faas loola ñu ko fekk ba tey ci Leewtoo Planète mu mel ni kii nag combat ba taxaw na ñaari manaat sa moo xam ibra Mbay la wala Saal ba moom ku ci ne jël nga sab avance dal di yóbbu sa kër kon nag bëre moo fa daal di des zaal ba nag jamono yooyu moom mu ngay dànkaafu ka nga xam ne moo di Gris 2 ne na ko li leer ba leer yéen waa Fass xam ngeen Abdou Diouf rawatina sa mag ndax nag am na fa mu jaaroon ak moom te foofa mu jaaroon ak Gris Bordeaux mu mag ma yow Gris 2 fa la ñu fas yéenee jaar ak yow waaye ton du forox de ka nga xam ne nii moo di Ibrahima Mbaye moom ne na ko ñëwal yegg si leen yéen daal ñu ngi taxaw ñun jatu nib soccet di leen nekk lu ngeen bax dana ñu ko ngeer mu mel ni ki jéey itam mu ngay wax de jéey daal dina leen leer ba leer moom li ñu bëgg mooy satisfaire amateurs yi ci seen ay bëgg-bëgg ci ay combat yoo xam ne fas nañ ko yéene di tëgg laat njaay itam wax na ma nga xam ne nag moom mooy coordonnateur ba moom daal nenam combat ba moom mois de juillet ko fas yéene def waaye keneen koo xam ne itam taxawal na combat soir bu neex neex loola ñu ngi ko fekk sunu làmb mooy que nga xam ne nii moo di Assane Ndiaye Assane daal ëndeeti na combat ay xale yoo xam ne yu tàng jër jër lañu muy le premier mars dox ci diggante Petit Ñaar ba ngeen xam ak ki nga xam ne moo di bulle de serre bu mel ni booba combat itam daal Assane Ndiaye moom loo ci mën di dégg taxawal na ko ngir mois de mars tombeek le premier loolu yëg li bi di sunu lamb fa la ñuy fekk mel ni kii noonu waaye leneen loo xam ne tamit mën nañ koo fekk fi nga xam ne nii moom moo di ci yëg li kaay bi di muy loo xam ne daal li olof di wax juumul mbokk nday moo koy jur ndax nag dese bi nga xam ne ni amoon na dal ci Aziz Ndiaye soxnaam génn àddina yëg li kaay bi moo seetlu ne Baye Ndiaye day boo xoolee digganteem ak Aziz daal daa mel ni guddeeg bëccëg la wala àjjuma ak samedi bés doxu taxawu fa fu Aziz taxaw bàyyi taxawu na ko fa ci mettit wi mu mel ni kii daal kon li olof yi wax rek loo ci mën di dégg moom mbokk mu mu mën a doon dees koy sàmm ndax yàllaa ko waxoon daa bind mbokk mbokk jooy ne ko sama wàccee àddina dinañ ma dog yàlla ne ko demal maa lay sàmm ku la dog ma dog ko kon maar fonkal say mbokk ku ñuy déglu na nga jàpp say mbokk fukki loxoog juróom ndax mbokk kat mooy dëgg mbokk waa Leewtoo TV ñu leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen ci jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la moo tax revue de presse bi duggul Babacar waaw loolu moom dañ ciy bàllu àq bu baax a baax a baax a baax rek xam nga parce que tamit bu ñu sañoon moom lépp lu ñu def rek suñu leen koy jox day normal mais nag mbir soo demee ba mënatoo ca dara a ah, la ma gën mooy nga téye ko mooy gën nga koy jox ay nit ci joxin boo xam ne nii buñ koy consommer du am njëriñ quoi loolu la rek mi ñu leen di balaax bu baax a baax Babacar nag ñu commencé ak sunu lam nag ñu ngi yëgal ne premier face à face diggante Modou Lo ak Ama Balde euh, yàggatul dara mu taxaw ki nga xam ni mooy Luc Nicolaï depuis euh, bi mu nekk moom daal nee na averti na na mu ngi si préparatif Babacar. waaw loolu daal li ñu ci mën a wax mooy alhamdulilah rek parce que combat boobu moom defe naa ne bëgg nañ ko Sénégalais yàlla def na taxawal na ko yàlla def na bi mu ko taxawalee nag yàlla indi ci kawam ndog mu nekk si kaso bi kon yaakaar naa face à moom seen premier jàkkaarloo loolu moom dina mel ni tukk suban saañ bëriir xaw ma fu muy amee ci réew mi de waaye ah sa lubu ndaw ca Pikine doomu fàllaay ah caat comme nañ koy wooye ak kan le roi des arènes the moo Modou xarañ loo mu PA ba 19 1 ba 26 1 ba 26 du moins waaye yow loolu loolu yàlla nañ ko fekkete tal ko lig daal li ñuy ñaan yàlla yàlla na yàlla yore micro yi loolu lañ koy ñaanal waaw di ko wax ne ko daal ñun ñu ngi ci ginnaaw di ko soutenir toujours ci lépp lu ñu mën nag bu ñu gisee bu ñu gisul jot nañu tamit ay waxam ci ci ñun rafet na trop macha allah yàlla na ko yàlla génne foofu. Amin yi ñuy xamal nag Modou Lo mi nga xam mi nga Europe nee ñu nag yibbiseem yàggatul dara mu ñëw fekkee face à face bi. waaw loolu moom xam naa ne yàggatul ndax euh, ki démb euh, comme ñun dañuy kii wa dañuy wër ay xibaar waxtaan nañu yaa ngi dégg. waaw loo xam ne nii xam nga kon Moodu yaakaar naa ne fi nekk nii léegi mu dugg ci réew mi ngir lan ngir waajal boppam ndax Moodu moom comme li ñuy wax rek moom làmb bokk na ci yoo xam ne ni dama naan ay royukaay lañ ci làmb parce que lu tax mooy du foye làmb boo xoolee tey fi mu yegg si ak niveau bi mu atteindre ak ni mu toll da ngay xam ne wax dëgg yàlla fonk na li muy def bu baax a baax te mbir mu mën a doon nag la Youssou Ndour waykat bu maag bu waxoon rek daqaar sa ndey kumba boo koy jaay am ca fulla moo gën boo ko deful ma ñam da koy jeexal Babacar journal mi ngi xamal ne ki nga xam ni mooy écurie Parcelles Moro mi ki nga xam ni mooy kenn si leader mi muy Franc ndax foofu ak ki nga xam ne mooy Goro Sock ne ñu nag soo moytul Franc moomu euh, fekk ci ki nga xam ne mooy Papa Sow di a créer écurie foofu si Parcelles Assainies waaw Goro sax moom mu nga dóor dóoraat moo nekk ca Moussa Dioum ca dóor dóoraat waaye li leer ba leeral xaw ma dina fa jóge xaw ma du fa jóge waaye xam naa daal Franc ci la waaye ñàkk Franc ci sécurité moom ah mën naa nekku mais sécurité de ndax li tax mooy Euh, macha allah moom itam li ma waxoon sànq rek ci Modou Lo dal na ko fonk na li muy def te it bëgg na ko te mën na ko te chaque jour mu ngi liggéey luy tax muy progresser te à chaque saison bu ñëw nga gis ne kii mu ngi progresser kon nag tey bu ko waa parcelle mbooloo ñàkkee moom ah dina doon ku bu métti si maanaam coup dur comme ni ko tubaab bi wax dina métti ci ñoom trop waaw ki nga xam ne mooy Assane Ndiaye moom taxawal na ci benn combat combat des jeunes ki nga xam ne mooy Bulldozer pour le premier mars Babacar waaw Assane xam naa yaram bi daa tàng ndax fan yëpp mu ngi ay combat yoo xam ne daal amateurs yi soxla nañ ko ko ziar waaw loolu nag mooy làmba ay promoteur lañu am nañ espoir yoo xam ne tey ci génn lañ toll Petit Niang mi mu ngi woon ci yoon wi di génn am ñàkk ay combat Bulldozer mu ngi ci tracé bu bu yàggul la jóge ci ndam lu rëy rëy kon yaakaar naa daal combat la boo xam ne nii combat bu war a mën a neex la kon Assane ñu koy nuyu di nuyu waa bool production bi yëpp suñu jógee nag suñu laam nañ dem nga xam ne fii mooy roko si xalima Abou Nour foofu nag ni euh, ngi préparé seen ni bi bu baax a baax ndax Papa Sow moom euh, Léopold Sédar Senghor moom la tàmb Siteu moom mi ngi si militaire GIGN moo tax ma ne la ñoom ñaar <laughs> xam nga Léopold Senghor moom dafa di yéegi grandé kooku garaatee métti na de kooku moo lay wat ne papa itam combat bi fonk na ko jox na ko cir waaw loolu nag mooy làmb ndax dañ ne fo làmb làmb fo ku daanu ruus moo tax ba nga xam ne ku lekk avance ak say mbokk la wolof di wax rek tëdd pom yaa ngi dégg kon yaakaar naa waxuma la sa Léopold Senghor waaye bu ko neex sa na ca boole monument de la renaissance ak yooyu ndax li ndam jar na ko si itam waxuma la GIGN waaye bu demee yeboo sax doolu ci camp Jël ak Elzey a yi bëgg bi nar naa metti kon daal damaa jàpp ne Pape Abdou moom tëgg nga xam moom lu mu gis ne na Papa Sow moom mooy favori devant Siteu mais favori ça pas yow yaay gagné Babacar favori daal maanaam xëy par rapport ak expérience beeg ancienneté beeg yooyu noonu. ak ak nombre de yi waaw loolu boo ko jëlee da nga koy jox favori et puis c'est normal parce que tamit sport que moo jiitu si te si làmb moo këppale ay combat moo këpp ay ndam. loolu moom mooy li am c'est itam nangul na ko lu mel noonu parce que keroog wax na ko ci biir ay waxam yaa dégg mais nag nekkul ne que favori boobu dañ ko daan obligatoire yaay gagné parce que yow yaay favori non non lii tax ngay gagné danga koy liggéey favori sur le papier la ci kayit lay ne mais nag lay am ca géew ba ak ca bés ba si kàttanu yàlla fa moom bëgg-bëgg ku gën a bëgg dina fa feeñ ku gën a liggéey dina fa ku gën a pare physiquement ci wàllu psychologie itam yooyu yëpp dafay feeñ moo tax nga xam ne daal c'est tey itam bu dul favori itam waaye outsider bu wóor a wóor bu coriace sax bu doy a doy waar waaw Babacar suñu jógee fi nga xam ne mooy record yi dem si Leewtoo euh, point net Leewtoo point net mi nga xam ne ki nga xam ne mooy jëy production taxawal na combat des des titans wala combat des lourds diggante ki nga xam ne mooy Abdou Diouf ak Gris 2 dafa mel ni Abdou Diouf moom dafa bëgg waa Fass ginnaaw <laughs> Gris Bordeaux ak Forza mu jëlate na ki nga xam ne mooy Gris 2 Babacar waaw Abdou ak waa Fass moom xam naa longue histoire la moom loo ci mën a dégg moom bëgg na waa Fass waaye jëy seen it dañ koy nuyu di ko ziar nuyu coordonnateur bi Abdoulaye Ndiaye parce que lu tax mooy moom it li ñuy wax rek waaw moom mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu à chaque instant ngi nay combat yoo nit ñi dañ koy xaar wala mu nekk yoo xam ne sa des fois nit ñi dañ naan lii fu mu nekkoon mu xëy xëy laaxar ci ko ndax yaakaar naa gars yi bàyyiwu ñun boobu combat xel te ko liggéey sax moom su boole ci jéy nag jéy nag moom ak lu mënti xew jéy xam naa ko bu baax a baax jéy bëriwul la jéy bokkoon nañ garage yaa ngi dégg muy def tolier ca centre de course kon jéy xam naa ko bu baax a baax ñoo dëkk bariwul ay wax loolu nag nit ku ne dafa am méthode de travail booy liggéey yaa ngi dégg moom xëy na loolu méthode am la mais daal loo si mën a dégg moom tëgg na combat Abdou Diouf nag defe naa faas la ko jëlee woon ci digganteem ak ki nga xam ne nii moom moo di Forza ca Diourbel Pape Thialis Faye gi yëg Leewtoo ñoo ko tëggoon yaa ngi dégg waaye loo si mën a dégg Gris Bordeaux Abdou Diouf daan na ko kon ñaar yooyu ngay jël daan na Forza daan na ko daan na Gris Bordeaux sal ba nag nee na Gris de la fi Gris Bordeaux ñamoon yow moom lañ lay ñamal waaye daa mel ni Ibrahima tontu na ko waaw nee na ko ñu ngi lay indi xaar kon daal ji itam macha allah ci combat boobu waaw waaw Babacar ni ñëw nag ak benn information ak ki nga xam ne ginnaaw mu takkee soxna muy booy Faye foofu si Leewtoo point net ne ñun euh, CNG bi nga xam ne mooy Foundiougne aj na ko ak moom ki nga xam ne mooy arobase mais nag CNG CNG bu nekk Dakar moom nee na euh, daan boobu euh, nanguwu ko parce si biir lettre de circulation bi nga xam ne envoyé nañ ko fii Leewtoo point net nanguwunu te joxunu benn motif donc nee nañu daal CNG boobu nekk fa fi xam ne mooy Foundiougne nanguwun daan yi nga xam teg nañ ko kii si kaw booy Faye ak ki nga xam ne mooy arobase Babacar ah waaw loolu nag moom mooy bu maanaam bu bu tey bu fekkente ne Babacar aj fii ci Leewtoo nit ah Pape Thialis Faye dindi aj ba moom yaakaar naa aju Babacar ba day daal dem ca àll ba rek ca mbooy gi lay mujj ndax dootul am sens parce que maanaam ku ne am nga loo gis am bu Foundiougne bu dekkee ñoom Boy Faye daa dox doxalin bu leen neexul ba tax ñu aj ah, ne lañ leen indil du ay motif yu tax ñu war a nangu loolu ñu dindi ko ba sax lettre bu ñu jot amul motif amul dara ko yaakaar naa ne dépassé nañu foofu kon ay motif ay tax ñu aj nit ki waaye loo ci mën a dégg daal ñoom mbëri itam parce am na lu ma ci jot a jég ci fans club Babacar ndax ñoom dañuy topp làmb kan ni booy fay sestu fa def wala nangam sangam ba tax yooyu am yooyu yëpp li ñuy wax mbëri mooy nañu nekk ay sportif rek waaw parce que tournoi moom nekkul ne force boo ñëwee da nga ko war ñëw bëre daan wala ñu daan la loolu mooy li am waaw. Babacar ñu jeexee nag ak championnat d'Afrique bi am fee si Alger du 4 au 10 fee si Alger ki nga xam ne ñaari at bi yi nga xam ne ñoo représenté Sénégal ñoom la premier la ñu dem si diggante euh, Sitor la ak ki nga xam ne mooy sa xarit euh, Pierre Malick Ngom Babacar. waaw Pierre Malick Ngom sama xarit waaw moom saan euh, su ma soppee la ba pare nekk sama soppee soxna ndax nee na dafa bàjjanam teneng la tudd kon ma ciy profité di nuyu samam teneng waaye di nuyu bàjjanam teneng du mën a ñàkk di nuyu képp tudd teneng ndax sama teneen waaw loolu moom nga ne fu muy amee Alger yàlla nañu ñuy ñaan yàlla ñu gagné ko rek championnat d'Afrique yooyu yàlla nañ ko gagné indi médaille d'or yëpp Sénégal parce que loo ci mën a dégg daal lit bi moom ci côté yëpp yaakaar naa mu ngi def waaram waa xëy na yeneen discipline yi ñoo am yenn jafe-jafe yi mais lit bi moom bu ñu ndee médaille d'or du ñu jaaxal bu ñu gagné CEDEAO du ñu jaaxal ndax nag ña ca ñu ngay compétir te jox nañ ko fulla kon dañuy ñaanat suñu président Macky Sall rek ak ministre de sport Matar Ba a dooleel ñi nga xam ne Babacar na si kàddu yoon leen di tàggoo di leen jox di daje leen euh, mais balaa ba muy nuyu yaay mais soo nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astandi ne chéri Khadija ki nga xam ne mooy Mbaye Sey nuyu euh, Abdou Gueye depuis États-Unis euh, Papa Sita Baye Fallou Diamaga nga xam ne mooy Khoudia Seck chéri Asek depuis Italie aussi manque ngi koy nuyu ki nga xam ne mooy Aïda Diouf nuyu Aïcha Faye yaayu Paate aussi yaa ngi si yaa ngi biir nuyu samay doom maam Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ne mooy Grand Fallou depuis Parcelles Assainies aussi yéen ngi si biir Babacar nuyu aussi Ramos Ndiaye yaa ngi si biir waaw Ramos ñu ngi koy nuyu di ko siyaar di nuyu képp ñu suivre rek waaye nag di wax mention spéciale à Rimka Couture gis nga tey fi mu génnee ti Babacar kenn du yow si sa d'Or bi séeri nday borom Touba Sandaga di ko nuyu di nuyu tamit sama xarit Saliou Khoule di ko ñaanal jàmm yàlla na jàmmam yàgg bi du nuyu ki nga xam ne tamit mooy sama transitaire bu ñaawul bi biisu baabu biisu kon amati ko ku bees indi naa transitaire bu bees teq biisu baabu borom port doomu nday jigéenu Rimka Couture kenn du biisu baabu maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit waa marché Tilène rawatina ku mel ne Abdou Diouf ca saag ya ñoom Ali Waj ak Baye Mor Waj képp ku ne marché Tilène ba joon maa ngi lay nuyu ak Cheikh Ndiaye sama rak jaaykatu tisi non tisi lay jaay kooku borom marché di leen borom Jurbel maa ngi koy nuyu di nuyu daal képp koo xam ne yaa tuuti yaay Sarr du ma ko fàtte maa ngi koy nuyu di ko ziar ñoom Khady Rose Ndiaye maa di ko ziar doomu Aziz Ndiaye di ko jaale tantam jooju ba tey encore une fois rek yàgg maar du mën a ñàkk borom Liberté 4 doomu ndeyu Kempes ak bës boroom Sine maa ngi lay nuyu di wax ne Kempes na gaayu jàng falaq yeeg naas yi ak salaatul faati ndax yàgg mën a am soxna bokk ci 2020 bi di wax que ni Sénégal yàlla na ñëpp am jàmm barke yonent bi kon boog ba incha allah.